Konou, Chamaral Foutiou et toute la communauté Halplar sont plus que jamais déterminés à constituer des boucliers pour défendre la religion contre toute attaque et quel qu'en soit le prix. Hmm. Nous défendrons la religion, nous défendrons la communauté contre toute attaque, d'où qu'elle vienne et quel qu'en soit le prix. Au prix de notre vie, nous défendrons la religion, nous défendrons la communauté. Ce sont des gens à visage découvert qui ont proféré des insultes à l'endroit de nos guides religieux. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a constaté. Sur Instagram, tout le monde l'a constaté. C'est une dame du nord de Kadiacham à visage découvert. C'est le moment d'appeler l'État à prendre ses responsabilités. Nous demandons aux autorités judiciaires de prendre les dispositions nécessaires pour que cette dame soit arrêtée le plus rapidement possible et traduite devant la justice. moy li nga xamne ne attaquer suñu serigne attaquer mag ñu bax ñi li ñu wax Cheikh Omar nak aduna bi yëpp dégg nañ ko teg nañ seen bët dañ koy naxarlu diko metti ñun talibé yi en tant que ay talibé yu Cheikh Omar bu cenn mohamed Bachir plus particulièrement wa konu bu Cheikh Omar ñom ñokay naxarlu té paré nañ nak limu laaj ñu jox leen ko ba mu jé tak bu dee suñu bakkan lañu laaj nañ ko ci def ci li nga xamne ay attaque yo xamne ñu ko def kan suñu serigne lañ ko def Cheikh Cheikh Omar bu cenn mohamed Bachir mu daga Daaxa bu Cheikh Aji Omar. dañu la suñu ngëm-ngëm dañoo laa suñu pas-pas dañoo laa suñu day rek ñun tukkuloor kan ma suñoo xam ci violence dañoo yër ci diine yar ñu ci teggin yar ñu ci maandu yar ñu ci xam aduna te mag ñu jox jox nañu cër kenn du wax ci Sénégal ba mu daj kenn mosul wax ne mos na dégg kuy xaar pulaar rek wax nga loo war ta wax la def nga loo war ta def wax ji bëri na coow li bëri na mosu ñoo yuuxu mosu ñoo saaga mosu ñoo lakkapano waaye nag di jot jot na lu weesu ginnaaw de. lenn am na taalibe Cheikh Omar yi ñu ngi fépp ci Sénégal quatre points cardinaux yëpp. taalibe yi ñu ngi foofu pare na nag lii bi nga xam te ni dal na suñ kaw fekkee ne gouvernement bi faju ko ñun pare nañ pour fajal ko suñu bopp nuñ ko mën di fajee nag pare nañ ci ba daj suñu bakkan des ci ndax ndax Cheikh Omar Foutiyou du foo du caaxaan ku ko xamul ci Sénégal dégg nga ko ku ko xamul ci Afrique dégg nga ko ñun nag amuñu boo xam ne dañ koy këllikalee ñun duñ ko nangu fii diine réew diine la réew mi islam la amuñu kenn ku dul mag ñi Cheikh Omar ko attaqué nag ñun nga attaqué